di looy def mu jig la chaque année da nga koy da koy bëgg chaque fois di def mais tey dina am tey am na benn kii spécial parce que euh, lutteurs yi comme ni ñu ko waxee xam nga lutteur dafa am lu mu laaj ñu ngi seen cimikaay ak yooyu soo ba léegi ñu en route mais ñëpp dinañ fanaan si incha allah moo tax nag Aliou ñu ngi fi dèjà ak 76 euh, baa ngi fi dèjà Amadou Dia 66 Aliou mi ngi fi dèjà il nous reste 3 qui sont déjà en route Abdoulaye Ndiaye. mooy doomu Robert Diouf mooy cent cent cent vingt kilos. y' a aussi euh, le cent kilos qui va nous des îles. y' aussi euh, euh, Anne Cheikh Tidiane Anne qui qui vient de Tivaouane pour dire que c' est la c' est la région qui est représentée. région bi yëpp ngi fii lutte région bi ñoo fi nekk. encore une fois vraiment ñu ngi nii comme ni ñu ko doon def chaque année ñëw say loxo di sàkku ñaan encore di la wax ni délégation baa ngi nii fas yéene dem ci jàmm comme ni ñu ko defee chaque année ñëw ci jàmm c'est-à-dire tàllal suñu loxo te ñëpp ah di vraiment li ñu daan ni mu daan doyee mu koy demee parce que yow di kër vraiment jingooñu ba nga ñëwee ba léegi sa première année lañ ñëw jël drapeau chef de ñu ñaan yàlla aussi euh, ak weeru sell yi ñu génn comme ni ñu ko defee woon année yi passé bu ñu bii pas dem vraiment yàlla dafa ñuy jàmm ñu dem ci jàmm ñu war ci jàmm te jël ndam li te vraiment moo ñu tax a jóg incha allah te yàlla ñu ko yàlla defal. encore une fois pour bañ a guddal parce que temps le temps est précieux. vraiment président loolu laa amoon na ma ci sànni sànni rek pour l' instant merci euh, euh, mhm. euh, dañuy wax rek alhamdulilah rabil aalamiina. Mhm. ndax daaw. Mhm. fii lañuy ñu taxawoon defoon cérémonie bu mel nii. wax fa ñu jóge woon fa ñu jóge woon mooy ñoo doon champion. du Sénégal. doon dem di défendre suñu tiir waxoon tamit ni suñ demee incha allah dañu def suñu kem kàttan pour conserver titre bi ah, yàlla def conserver wuñ ko waaye ginnaaw doon ni làmb dama déggoon ku mel ni Abdourahmane Ndiaye Fall lañ daan wax naan làmb dangay dugg rek làmb loo daj bu dëgëree nga bàyyi fa waaye fexeel ba bul génnee loxoy nen te daaw defe naa génnewuñu loxoy nen kon ñu sant yàlla bu baax a baax ren it ngi taxaw fii du wutiwaat wutiwaat lay wax. Mhm. yàlla nañ ko yàlla may ci barke Seydina Mohamed. ci barke weeru weer yu ñu génn. Mhm. ah def nañ daal suñu sélection da nga xam ni moom lañu ñu waroon. nga xam ni moom lañ daan def. Mhm. def nañ suñu kem kàttan pour suñu demee. suñu taxawaay jekk. li nga xam ni euh, moom la ñu wuti. ñu dem ci ak yaakaar bu baax a baax a baax a baax. kon daal monsieur le lu wax ji du jar guddal. dañoo ñëw rek pour comme ni ko Moustapha waxee nga gunge ñëw ak say ñaan ndax nag euh, amul hasard amul. Mm-hmm. Moustapha wax ko hasard amul. Euh, loo defoon mu jig la. Mm-hmm. ne nañu foo euh, jeexal moom foo ruur sab loxo dajub doom. dañ mm-hmm. ko fay delloo. kon nag loolu daal moo doon wax ji monsieur le gouverneur di la sant di la gërëm nag di ah jégalu tamit ci ci ci taxawaay bi. yàlla baax nag ba ñu ko deful ci weeru koor ndax xam naa ne bu doon weeru koor moom. doo fi war a yàgg ak ñun <laughs> kon jërëjëf monsieur le gouverneur. jërëjëf jàllo jàllo bi dégg na wolof de gis ngeen gis ngeen yu fi làkk ah, ah. saa saa ma également koor gi jeex na sinon du am inspiration bi ah ne sangom waa ji mu ngi tooñ de en maa ngi leen nuyu yëpp di leen nuyu bu baax amaat plaisir tasewaat ak yéen vraiment si leen recevoir ni ngeen di dellu drapeau chef de l'état euh, te ngeen jëloon drapeau bu rafet bi donc dañuy amaat yaakaar rek bu ngeen delloo mun ngeen ko jëlaat te loolu la ñuy xaar koy faral di wax nag depuis première fois bi man bu ñu mënee Cees daal buy dem man ma jàppale day dem jël ndam li dellu si waat ah? waaw bi mënuma concevoir que Cees nay dem ñu naan est-ce que dina jël ak du jëlul non je pense que fii région lutteur la waaw si en fait soo laa ko teg dëkk lutteur la région lutteur la war na mën gagné Abdourahmane Ndiaye falan nga kaa koy cité léegi bii def je pense champion du siècle ñu bëri si en matière de lutte moom lañ ko joxoon waaw président Abdou Diouf dama doon dégg ñu ne mënoo doon lutteur am te koy wax ne bi bu nekkee xale da daan dem toog si kaw garab yi lan ah pour di ko seetaan ni muy dugg seek na muy bëree donc euh, pour dire que champion yàgg na fi am Yékini fi la dëkk. Mhm. Mouhamed Ndiaye Robert Diouf man mun naa wax comme président Abdou Diouf danaa nekk dama nekkoon xale. Mhm. di dem effectivement di seetaani combat am. Mhm. voilà sa ginnaaw ngay toog effectivement wala ñu yóbbu leen toogloo leen si suuf nga nekk ay xale di ko seetaan. temps boobu c' était peut le meilleur lutteur du Sénégal également en son temps en tout cas à coup le meilleur technicien. donc su ñu amee produit euh, yooyu yëpp je pense que c' est normal que bu mel nii ñu mën a am yaakaar gagné. donc vraiment bon naa nag gagné toujours mënul nekk. Brésil la fi dàq football mais du gagné tout le temps coupe du monde. Mhm. voilà parfois ñeneen ñi gagné mais je dis que bu Fatick gagnéwul Dakar gagnéwul. Mhm. Thiès war na si mën a euh, chance vraiment donc da dem nag ñu ngi amaat yaakaar si yéen. Mhm. ngeen indiwaat ndam li kon ni ngeen ko defee woon euh, il y a trois ans bi ñëw. mais di am tamit di la ñaaxaat rek si beneen côté bi toujours que bu ngeen demee. su ngeen di gagné si kaw fair play lay doon su ngeen di ñàkk tamit si kaw fair play lay doon vraiment loolu la wax. représenté dignement mooy que doo ko def dara loo xam ne dañ la koy xeebe wala dañ la koy yebe voilà donc da ngay dem compétir en sportif gagné soo perdre tamit sportivement nga xam ne perte nga voilà loolu la ñuy recommandé d' espérer que vraiment que am ngeen conditions yu les meilleures pour mën a dem et di souhaiter donc une bonne chance et de nous revenir plein lorie lauriers. merci merci beaucoup. merci.